الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu si waat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi ñuy dellu di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ubbi téere bu sell bi jàng ko mu doon ay ngëneel mu doon ay njëriñ ci ñun tey jii nag damay wéy di nekk ak sunu gan bi nga xam ne léegi moom bokk na ci programme bi bokk na ci émission bi muy sama doomu ndey sama am di jàmm pasteur Balla Konaté balaa ma koy bàyyi nag mu nuyoog yéen mbokki auditeurs yi maa ngi leen di wax ne ku ci nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak ci santam di nuyu mbokki Sénégal yépp jéggi sax Sénégal di nuyu ñépp ñi nga xam ne ñi ngi fii ci sous-région bi muy Mauritanie muy Gambie muy Mali muy Guinée Conakry muy Guinée Bissau dëkk yooyu yépp ñi ngi leen di nuyu te nag di wéy di ñaan yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mu saxal mbokkoo ci diggante réew yooyu saxal ci jàmm ñun ñoo bokk xeet bi ñoo bokk askan bi yàlla nañu yàlla sunu borom di dimbale ba duñu fàtte buum yu am solo yooyu nga xam ne moom moo nekk sunu diggante kon pasteur Balla ma bàyyi la nga nuyoog mbokki auditeurs yi mbokku déglukat yi balaa ñuy ñëw ci waxtaanu tey ji jërëjëf pasteur Ahmed ñu ngi gërëm borom bi di ko sant moom mi ñu may euh, ñu mën a teew fii tey ngir waxtaan ak suñu mbokk yi di la gërëm di la sant yow mi nga xam ne it yaa moom émission bi te yaatal ko ba ñëpp mën cee jot di gërëm di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy faral di déglu saa su ne di leen ñaanal rek comme ni nga ko waxee yàlla wàccee euh, ay xéwal yu bëree bëri ci seen biir dund may leen saa su ne ñu mën ñu di ñu déglu te di ci jëlee njëriñ ñu ngi sant borom bi di la sant jërëjëf pasteur Balla jërëjëf jërëjëf ci teew bi nga xam ne yaa ngi koy teew ci émission bi ak euh, waxtaan yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy seq te mu nekk waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko lal ci téere bu sell bi jëmale ko ci jëmm jooju nga xam ne moo di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom mi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom jox muy buntu xéewal di buntu yërmande di buntu mucc di buntu texe te yàlla sunu borom nee na jëmm jooju wàcce naa ko ci biir àdduna ngir mu jubóole ma leen ak yéen ngir dox sama diggante ak yéen ba rataxal ko ba ñu mën a jegante kon cant ñeel na Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ pasteur Balla tey jii nag ma bëgg la jàngal ci injil ci xaaj bi ñu jagleel lukk ci aaya ñeent saar benn ba fukk ak ñett mu am foofu lu fa xew balaa sang bu tedd bi tàmbali mission bi nga xam ne moom la ko yàlla sunu boroom santoon joxoon fii ci biir àdduna dafa am maanaam lu mel ne daal da doon tàggat boppam balaa muy tàmbali mission boobu léegi ñu jàng ci injil lenn lu xewoon balaa muy tàmbali mission bi kon bu ñu jàngee ci injil ci xaaj bi nga xam ne moom la ñu jagleel luk mu nekk ci aaya ñeent saar benn ba fukk ak ñett day fi mbind mu sell mi dafa wax ne noonu yeesu fees ak xel mu sell mi jóge dexu yurdaan xelum yàlla mi yóbbu ko ci mànding ba mu nekk fa ñeent fukki fan jànkonte ak fiiru seytaane lekkul woon dara ci fan yooyu te gannaaw gi mu xiif noonu seytaane ne ko boo dee doomu yàlla santal doj bi mu nekk mburu yéesu tontu ko ne mbind mi nee na nit du dundee mburu rekk waaw loolu nekk benn xew-xew bu amoon ci dundam danañ gën a jóox nag ci ci ci injil li mu wax bii rekk mooy xaaj bu njëkk bi dañuy wax ne jëmm jooju di seydina isa almasi bi yeesu christ xel mu sell mi moo ko soob mu dem ci manding ba nekk fa ñeen fukki fan di ko woor koor goo xam ne boolewu ci lekk boolewu ci naan ñu ne jëmm jooju dafa mujj dem ba xiif ba yëg ko ci yaramam seytaane ñëw taxaw lalal ko ab fiir lu mu ko wax mu ne ko bu dee yaay doomu yàlla santal doj wi mu nekk mburu téere bu sell bi nañu yeesu tontu ko ne mbind mi nee na nit du dundee mburu rek aha jërëjëf pasteur xam nga aaya yi nga xam ne danga ko jàng léegi ci saar ñeent bi dafa am solo ndaxte Seydina Isa wax nga ko sànq dafa am lu ko andi dafa am liggéey boo xam ne moo tax mu wàcc ci kaw suuf liggéey boobu moo doon rattaxal suñu diggante ak borom bi liggéey boobu moo doon delloo si ñu ci bërëb ba nga xam ne fa la ñu nekkoon te waruñu fa woon a jóge te lañu fa jëlee di bàkkaar mbind mu sell mi day wax ni doomu aadama bi mu bàkkaaree ba léegi dafa nekk ci nootaangewu seytaane maanaam ci bëgg-bëgguk seytaane lay dox mu bëgg ko ak mu naxari ko kon bu almasi bi ñëwee ngir jubale ñu ak yàlla rataxalaat suñu diggante ak yàlla day jaadu ñu xool ndax moom mën na jàkkaarloog seytaane ba pare génn ci ak ndam ndaxte bu dee mënul jàmmarloo ak seytaane ba pare génnee ci ab ak ndam maanaam bañ a tàbbi ci fiirug seytaane loolu day wone ni motul li nga xam ne moo tax ñuy yabal ko moo tax xel mu sell mi andi Yeesu Krista almasi bi fii wax nañ ko mu oor ñeen fukki fan ak ñeen fukki guddi képp ku ko def ku ne xiif daal di dugg mar daal di dugg seytaane ëlbatiku bëgg a jaar ci porox ndollu loolu ngir fiir ko mu daanu dégg nga li mu ko wax dama ne ko bu dee yaay doomu yàlla soppil doj wi mburu waaw yeesu moom tàmbaleegul waaraate waxagul moom mooy kan kon seytaane lan moo fi andi bu dee yaay doomu yàlla ak boo dul doomu yàlla kon moom xam na kan mooy seydina isa almasi bi bu baax xam na mu ñëw nag comme xam na ko te xam na mission bi ko andi mu bëgg ko daaneel waaye yeesu almasi bi jàngal ñu fi jàng bu am solo mooy ne doomu aadama bi ci kaw suuf am na loo xam ne moo ëpp solo ci dundam lu weesu lekk ak naan dafa xiif weddiwu ko waaye dafa ne ko bind nañu ci téere bu sell bi ne nit du dundee mburu rek waaye ak bépp kàddu bu génn ci gémmiñuk yàlla muy tekki ne ak loo xiif-xiif loo bëgg-bëgg mbirum àddina lekk ak naan warula tàbbal mukk ci loo xam ni day weddi waxuk yàlla warula tàbbal mukk ci loo xam ni bàkkaar la loolu la ko seytaane bëggaloon mais mu jàngal ñu fii ne def leen ndànk ci àddina lekk lu am solo la ci àddina naan lu am solo la kàddug yàlla daf ñuy ñaax ñuy liggéey ngir mën a yor suñu bopp ñuy liggéey ngir mën a solu ngir mën a lekk ngir mën a am fu ñu tëdd ngir mën a am lu ñu naan waaye loolu waruñu yóbbee mukk ñuy teggi li nga xam ne mooy sarti yàlla yi te xam nga lan mooy sarti yàlla yi pasteur mooy nga topp li la seytaane digal nga topp bëgg-bëgguk seytaane ba bàyyi fa lii bëgg-bëgguk yàlla xam nga am kàttanu jël doj soppi ko mu nekk mburu nga lekk ko ndaxte da nga xiif loolu mën nañ wax ne dara amu ci waaye dara am na ci bu dee ndigal li ak wax bi mu ngi jóge ci noonuk yàlla muy seytaane kon boo ko defee rek na la wóor ne am na fiir bu lalu ci ginnaawam Seydina Isa almasi bi tàmbali na di wone ni seytaane munu ko digal munu ko nax ba dugal ko ci lenn loo xam ni méngoowul ak bëgg-bëgguk yàlla loolu moo tax foofu mu am fa ndam lu rëy a rëy a rëy te dama la bëgg a andi ci ginnaaw tuuti xam nga suñu maam Adama ak Awa bi leen yàlla sàkkee dugal leen biir àjjana ñàkkuñu woon dara lépp lu ñu bëggoon mu ngi fa ak ñoom waaye bi leen fay seytaane fiiree ci lekk ak ci naan maanaam ci bëgg-bëgguk yaram dañoo tàbbi ci bàkkaar yeesu krista almasi bi nag mu nekk ci bërëb boo xam ne dara nekku fa muy àll kese mu xiif mu mar ñu fiir ko mu taxaw temm ne damay topp ndigalug yàlla yi ak bëgg-bëggug yàlla yi bañ a def yow seytaane li nga bëgg naam sax dama dama xiif muy wone ni kon foofu am na lu mu rawee sax suñu maam aadama am na lu mu rawee yeneen yonent yi nga xam ni seytaane fiir na leen ñu tàbbi ci fiirug seytaane pasteur jërëjëf pasteur Balla mais dafa mel ne pasteur dafa am lu ma gis ci tontu bi mu tontu seytaane te nga xaw ko junj ma bëgg ñu dellu si ci waat seytaane daf ko fiir ci lekk ak naan fekk mu xiif lekk ak naan ñu xam ne dafa am solo torop ci nit ndaxte yaram bi yàlla jox ñu dañu war di nekk di naan ngir ñu dundal ko Seydina Isa almasi bi daan di ko wax ne ko nit kat du yem rek ci lekk ak naan maanaam lu jëm ci biiram wante dafa war a jël kàddu yàlla def ko ne lekk ak naan kon dafa mel ne foofu mi ngi ñuy jàngal ne kat ni ñu yitteewoo lekk ak naan ak niñ ko yitteelee noonu la ñu war a yitteelee kàddu gu sell gi maanaam jëmm ji nga xam ne moom yitteelul kàddu gu sell gi bu yeewoo suba teel du ko def ndékki du ko def añ du ko def reer nit ku mel noonu kon mën nañ jàpp ne kat moom mi ngi jëm ci faatu bu baax pasteur bu baax xam nga doomu aadama ruu la li nga xam ne moom la ñuy gis muy yàpp bi ak deret bi loolu ci suuf la jóge te ci suuf lay dellu loolu day yàqu loolu la téere mu sell mi wax doomu aadama ruu la ruu dañ ko war a dundal ruu dañ koy dundal waaye suñu ruu du dundee ceeb ak mburu suñu yaram moo soxla ceeb ak mburu waaye suñu ruu li mu soxla ngir dund mooy kàddu gi yàlla mooy bëgg-bëggug yàlla yi ndaxte ruu bi ci yàlla la jóge jógewul ci suuf ci yàlla la jóge kon li ko mën a dundal mooy li jóge ci yàlla te li jóge ci yàlla mooy kàddug yàlla mbokki auditeurs yi kon loolu nga xam ne moom la ñu sang bu tedd bi jàngal foofu lu am solo la kàddug yàlla sunu borom bi am na solo boo xam ne ni ñu yittelee lekk noñ ko noonu lañ ko war a yittelee kon képp koo xam ne nag bëgg nga am téere bu sell boobu mën nga jokkonteeg man ci numéro téléphone bi mu leen di faral di jox muy 77 0 74 35 35 bu boobaa danañ la jàppale ba nga jot ci téere boobu. waaw pasteur Balla ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu indi injil indil bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ jàmbaarloo ak saytaane bi ci ñëkk. gis nañ ne am na fiir bu mu ko teg mu jéggi fiir mu indi beneen ñaareel fiir muy bii injil di ñu wax ci xaaj bi ñu jaglee lug ci aaya ñeent saar benn ba ci fukk ak ñett seytaane yóbbu na ko fu kawe yóbbu na Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ fu kawe ci xef ak xippi mu won ko réewu àddina sépp ne ko dinaa la jox bépp sañ-sañu nguur yi ak seen ndam ndaxte jébbal nañu ma ko te ku ma soob laa koy jox kon boo ma màggalee di nga moom lépp yeesu tontu ko ne mbind mi nee na na nga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek. waaw pasteur Balla ñaareelu fiir bu mu ko indi mooy lii téere bu sell bi dañuy wax ne seytaane won na Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ lépp li nga xam ne mi ngi ci biir àdduna muy am. muy ndombal tànk muy sañ lépp li nga xam ne muy martaba lépp li nga xam ne mi ngi ci biir àdduna mu won ko ne ko kat lii boo ma jaamoo danaa la ko jox ndaxte looloo ngi ci sama loxo te ku ma soob laa koy jox sang bu tedd bi tontu ko ne ko mbind mi nee na na nga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek jërëjëf Pass xam nga xam kàddug yàlla ba pare di ko dundee dafa am solo ndaxte boo ko xamul rek tàbbi ci loo warul tàbbi lii seytaane wax fii almasi bi du du loo xam ne bana ko ba léegi mu ngi fii ci àddina si lu mu ko wax dafa ne ko sañ-sañu àddina yépp mu ngi ci sama loxo moo xam martaaba la moo xam alal la moo xam siw la moo xam daraja la lépp mu ngi ci sama loxo te boo ma màggalee rek ma jox la ko loolu pasteur dañ koy gis ba léegi ci àddina si doomu aadama yi bëgg alal bëgg ndomba tànk bëgg siw bëgg martaaba dina tax ñuy daw guddi ak bëccëg fépp foo xam ne biir Sénégal fii euh, dëgg la sax ne yaa ngi doon nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi nga xam ne ñoo ñu wër dañuy jéggi sax Sénégal fépp foo xam ne dégg nañu fa paa bu aay niñ koy waxee fépp foo xam ne dégg nañ fa maire bu man niñ koy waxee ñu ngi taal seeni oto ñu ngi daw ak seeni tànk ngir dem fa lu tax ngir bëgg ndombo tànk lu tax ngir bëgg siw ngir bëgg martaaba mais bu ñu fa demee digal yi ñu leen fay digal ak mbir yi ñu leen fay defloo dafa safaanoo lool ak bëgg-bëgguk yàlla ak kàdduk yàlla dinañu am loolu ñu bëgg waaye njëg li moo cher dégg nga li seytaane wax boo ma màggalee ma jox la ko waaw mais boo ma màggalee boo ma màggalee ma jox la ko ndaxte jébbal nañu ma ko te ku ma soob laa koy jox loolu moo am jébbal nañu ma ko xam nga yàlla bi mu sàkkee li muy sàkk yépp pasteur daf ko jébbal suñu maam aadama ak awa suñuy maam aadama ak awa bi ñu tàbbee ci seytaane dañu jox seen bopp seytaane waaye lépp li leen yàlla joxoon it dañ ko ko joxaale moo tax moom mu mën a ne jébbal nañu ma ko te ku ma soob laa koy jox képp ku bëgg seytaane mën na la jox daraja képp ku bëgg seytaane mën na la may ndombal tànk képp ku bëgg seytaane mën na la jox mataab waaye njëg li moo cher ndaxte da nga koy màggal fii da ngay gis doomu aadama boo xam ne mu ngeeg alal bu dul jeex waaye ayu bés yi benn rek la ciy tànn moo xam àjjuma la wala moo xam dibeer la di saraxe rek bés boobu rek lan moo ko waral da ngay gis koo xam ne yorewul woon dara mu dugg ci àll bi dellu si alors mu yore lu ne gàññ wala ñu koy takkal ay ndombol tànk di dem waaye boo duggee këram nga gis fa jigéen wala doom wala rak wala mag boo xam ne cër yi baaxatul mais loolu lay màggale yàlla loolu lay màggale seytaane ngeen jéggal ma donc njëg bi moo cher li ñu Seydina Isa wax fii mooy ne doomu aadama bi warul màggal keneen ku dul ki ko sàkk te mooy yàlla pasteur Balla kon ñu wéy di jàng ci téere bu sell bi téere bu sell bi bind ne yàlla sunu boroom wax ñu jot ci ci injil luk aaya ñeent saar juróom-ñeent seytaane yóbbu na ko yerusalem teg ko ca njombal xatu kër yàlla ga ne ko boo dee doomu yàlla tëbal jëm ci suuf ndaxte mbind mi nee na dinaa jox ay malaaka ndigal ci sa mbir ñu sàmm la dinañu la leew ci seeni loxo ngir bañ nga faqasalu ciw doj yeesu tontu ko ne mbind nañu ne bul diinat yàlla sa boroom waaw pasteur Balla fii moom amaat na mbir bu am solo bu fi xew ndaxte seytaane dama dafa mel ne xam na lépp li nga xam ne moo nekk ci diggante Seydina Isa almasi bi bi ko yàlla sunu borom jëmmalee ak aji kawe gi mu koy wax fii ne kat nee na yàlla sunu borom nee na lu jëm ci Seydina Isa almasi bi dana ko aar dana ko leewu ba nga xam ne dara du dal ci kawam mu yóbbu ko nag ci bërëb bu kawe ne ko yow moomu yow mii boo jógee ci kaw sax daanu ci suuf malaaka yi dana daw leewu la ndaxte yàlla moo ko wax Seydina Isa almasi bu tontu ko ne kat mbind mi tamit nee na bul diingat yàlla sa borom waaw pasteur ñetteelu fiir bi dafa am solo xam nga nitu yàlla du loolu ñuy woowe star star dafa soxla di def ay mbir di wone boppam xale yi di tàccu jigéen ñi di ko topp ñu naan kii dafa aay dugg na fi génn na fële Waaw.
waaye nitu yàlla du star parce que star ci dunduk nitu yàlla yàlla ci boppam kese la lépp lu nitu yàlla ci di def daf koy def ngir wone yàlla du wone boppam Euh, téere bu sell bi day wax ni ñun ñi nga xam ne ay taalibe Seydina Isa lañu dañu mel ni ay projecteur xam nga projecteur boo ko taalee boo demee guddi ngay seetaan football wala ngay seetaan làmb comme ci banlieue bi la ñu nekk nga dem guddi bu ñu taalee projecteur yi xam nga duñu ko féetalee euh, ci ñi nga xam ne ñooy seetaan ci ñi nga xam ne ñooy bëre ci ñooñu lañ koy féetale parce que ñooñu ñoo fa andi nit ñi alors nitu yàlla bi dundam yépp ak jëfam yépp dafay mel ni projecteur yépp ci yàlla la koy ne rey ngir bu nit ñi di gis bu ñu ko gis moom waaye nañu gis yàlla ci boppam ndaxte loolu moo am solo loolu la ñu euh, Seydina Isa di di jàngal fii lim ñuy jàngal fii mooy ne nitu yàlla du kuy kañu nitu yàlla du kuy wone boppam xam nga dafa am doomu aadama yoo xam ne mën nañu toll ci diggante bu métti ñu topp yàlla di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan yàlla defal leen benn kéemaan benn mbir moo xam ne lu am solo la ñoom ñu xëy rek bëgg a sukkandiku ci loolu def seen bopp star kaay leen xool ma mën naa lii kaay leen ci man mën naa def lii seen wax yépp mooy man même buñ ciy dugal yàlla da ngay gis ne dañ koy frôler rek romb mais lépp ci ñoom la Seydina Isaa mu ne benn nitu yàlla du mel noonu ñaar li mu wax seytaan yi mooy ne bind nañu ci téere mi ni bul dingat yàlla sa borom li mu bëgg a wax foofu mooy ne boo da ngay am gëm wala nga bañ koo am waaye yàlla kenn du vérifier li mu wax ndax dëgg la wala du dëgg yàlla bu la ne boo ma toppee dinaa la defal lii doo ne xaaral ma vérifier ndax yàlla man na ko wala manu ko loolu day wane ñàkk ngëm Seydina Isa li mu ñuy jàngal mooy ne yàlla bu la ne boo jógee ci kaw asamaan nga daanu dinaa la leewu ba dara du la jot yow bu ko vérifié demal rek bu jamono doxee ba benn bés nit yéegal la ba ci kaw bëmëx la yàlla dina def li mu wax waaye yow boo ñëwee na nga ne damay yëg ci kaw étage bi ma tëb xool ndax yàlla dina def li mu wax ngir bu ko defee nit ñi gis ma man ma tàccu ne diw amul morom loolu amul ngëm ngëm nekkatul foofu yàlla nekkatul foofu waaye sa bopp moo fa nekk pasteur Euh, pasteur Balla li nga wax léegi lu am solo la dama ciy jàpp benn da nga joxe benn misaal ne boo demee ci stade fa ñuy tàggat yaram da ngay gis ne bu ñu taalee lamp yi dañ naan ko rey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi nga ne nag nitu yàlla noonu la war a mel maanaam doomu aadama sax noonu la war a mel lépp li nga xam ne da koy def rek daf ko war a def ngir yàlla te dafa war a jubal nit ñi ci yàlla moo tax Seydina Isa almasi bi sang bu tedd bi naan foofu kat ah kenn du diingat yàlla kon yàlla nañu yàlla musal ci ñi nga xam ne dañuy diingat yàlla te yàlla nañu yàlla musal ci di ko ñi koy diingat yàlla nañu yàlla aar ba duñu diingat yàlla mukk bi mu génnee ci loolu ñu jàng pasteur Balla ne ah dafa dem ci benn diiwaan ñu ne bi Yeesu génnee ci loolu ci injil aaya ñeent saar fukk ak ñeent ba ci fukk ak juróom-ñeent ba ci ñaar fukk ak benn sax day koy wax ne Yeesu dellu diiwaanu Galilée fees ak doole dooley xelum yàlla xel mu sell bi nee nañ turam tàmbali nag di siiw Yeesu dem Nasaret ca bésu noflaay ba ba mu fa yegsee ñu jël téere yonent yàlla Esaay bi jox ko ko ne ko na ko jàng mu jàng ne xelum boroom bi mi ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xibaar bu baax bi dafa ma yónni ngir ma yëgal jaam yi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne danañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi mu yokk ci ne noonu mu daldi ne tey jii loolu mbind mi wax mat na pasteur Balla sang bu tedd bi dem foofu ci diiwaanu Galilée ñu jël téere bi nga xam ne mooy téere bu sell bi nga xam ne yahud yi bisub noflaay dañ daan dem ci kërug yàlla ga toog fa di jàng téere bu sell bi di sargal yàlla sunu boroom bi mu yegsee nag ñu jox ko téere bu sell bi mu ubbi ko tombe ci aaya yu am solo yi nga xam ne lii mu jàng dafay wane ne kat bés dana am loo xam ne dana xew xew-xew boo xam ne bu am solo la yàlla sunu borom di ko baaxee doomu aadama bi mu jàngee nag ba pare mu tëj téere bi ne leen nag tey jii loolu mbind mi wax mat na waaw pasteur Ahmed xam nga yonent yàlla Esayi yonent bu màgg la ci yonent yi yàlla yónni mu bindoon fii te ni nga ko jàngee ci aaya yi muy wax firnde yi nga xam ne moom la ñu am ci ñëwu ki nga xam ne mooy almasi bi yàlla def ndaxte lii mbirum yàlla la ci mbirum yàlla la bi almasi bi ñëwee ci këru yàlla gi ci bësub noflaay bi ñu jox ko téere bi mu nekk aaya yooyu mu jàng ko li mu waroon def mooy bu ko jàngee ba pare mu waare ci mu wax ci xalaatam wax ci bëgg-bëggug yàlla waaye daf ko jàng ba noppi mu tëj ko mu ne lii téere bi wax nii mot na tey maanaam jaratul ñu ci def commentaire jaratul ñu ci waare mot na ndaxte ki téere bi di waxal agsi na li yonent yàlla Esayi wax nii munul mat fekk ki muy wax kooku ñëwut kon bu almasi bi waaree ba noppi tëj téere bi ne lii ñu wax ni mat na tey li mu bëgg a wax mooy ne ki war a def mbir yii ki ngeen war a ràññee ci jëf yii agsi na mu ngi ci seen biir léegi kay wax jeex na li des mooy ubbi suñuy gët di xool ndax li yonent bi waxoon dina ko def wala du ko def bu kon bu almasi bi ne mat na tey li mu bëgg a wax mooy ne ñëw naa man la man ma la téere bi doon wax te lépp li téere bi wax dinaa ko def ngeen koy gis pasteur kon Seydina Isa almasi bi Yesu Christ bi mu ne mbind mi mat na jàngal nañu foofu ne li nga xam ne moom la yàlla digoon aadama ak awa wéy di ko dig nit ñi ne leen kat bés danaa ñëw danaa leen goreel kon jëmm jooju won nañu ne moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónni ngir mu goreel doomu aadama kon ki nga xam ne moom mooy yeewi nit ci buumu jaam jooju nga xam ne moom la nekk ci saytaane loxol saytaane moom mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ kon cant ñeel na yàlla sunu borom bi mu ñu defalee lu màggee noonu pasteur Balla daf ci yokk ne tey yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi mu mel ne foofu dañuy wax ne yiw kon wàcc si na àddina
waaw pasteur yiw wàcc si na ci àddina ndaxte yàlla gane si na àddina jaarale ko ci jëmmub Seydina Isa yiw wàcc na ci àddina ndaxte yàlla ñëw na ngir goreel doomu aadama yi boo gisee yàlla yabal isaa ngir mu goreel ñu dafa fekk ni suñuy jëfu bopp mënuñu goreel xam nga ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te ñu yàlla may leen ñu jaar ci école ñu jàng tuuti histoire xam nañu ne jaam mënul goreel boppam jaam dañ koy goreel mënul goreel boppam comme ñun ay jaamu bàkkaar lañu li wóor ba wóor mooy ne dañu soxla woon kuy ñëw ngir goreel ñu te ki ñëw ngir goreel ñu muy Seydina Isa defu ko ngir dara wutul ci ñu lenn du am am du daraja ndaxte fa mu nekkoon weetu fa fa mu nekkoon ñàkku fa moom mooy aji sax ji lépp moo ko moom kon bu ñëwee ngir goreel ñu lenn taxul mu def ko lu dul mbëggeel lenn taxul mu def ko lu dul yiw kon pasteur xam naa waxtu bi mu ngi bëgg a dab di di la gërëm di la sant di wax mbokk yi nga xam ne ñooñu doon déglu ne nañu bamtuwaat kàddu Seydina Isa yi nañ ko xalaataat nañ ci gëstuwaat ndaxte jàng bu am solo la jàng bu xóot la sànq man su may wax damay wax nitu yàlla waaye bu may wax nitu yàlla waxuma kilifa diine nitu yàlla te wax nga ko sànq doomu aadama yëpp nitu yàlla lañ war a doon ndaxte ñun ñëpp yàlla moo ñu moom kon ñun ñëpp nitu yàlla lañ war a doon kon lépp lu ñu wax fii rek kenn kun képp koo xam ne doomu aadama nga rek soxal na la bëgg nañu nga xalaat ci bëgg nañ ci nga nga gëstu ci surtout nag bëgg nañu nga xalaat bu baax ci baatu goreel boobu ak yiwu yàlla boobu nga xam ne moom la Seydina Isa andi maa ngi lay gërëm di la sant pasteur jërëjëf pasteur Balla jërëjëf ci sa teewaay fii ak jërëjëf tamit ci waxtaan bi nga xam ne seq nañu ko mbokki auditeurs yi tey jii nag jàng nañu lu kàddu yu am solo yooyu nga xam ne Seydina Isa almasi bi Yesu Christ jox nañu ko te injil indil ñu ko mu nekk ci téere bu sell bi ñuy fàttaliku ne bàyyi xel ne kat dëgg la ne seytaane bari na doole ci àdduna wante yàlla sunu borom ubbil nañu yoon ubbil nañu pexe may nañu bunt boo xam ne buñ fa jaaree ah muy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ danañu rëcc ci fiiru saytaane Seydina Isa almasi bi di wax ne téere bu sell bi bind xelum borom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew ji doole yi xibaar bu baax daf ma yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañ leen goreel yëgal gumba yi ne danañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi mbokki auditeurs yi fii la ñuy yemale sunu émission tey ma leen di fàttali nag sunu numéro de téléphone di 77 074 35 35 boo leen ñu ci woowee wala sax ngeen yónnee ñu message danañ mën a waxataan ak yéen woo leen boo leen bëggee téere bu sell bi ñu dimbali leen ba ngeen jot ci te am boo leen amee tamit loo leen ñuy laaj mën ngeen ñu ko laaj ñu def ko waxtaan gën leen ko leeral ci kàttanu yàlla sunu borom ci kàttanu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ amin mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35